ci xeex bi nga xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy xeex euh, feebaru bon boobu jóge ci Covid 19. Euh, ku ne xam na ne euh, àdduna bi yëpp ñoom ñoo jàkkaarloo ak mm, feebaru bon boobu président la république woote woo sénégalais yëpp ne nañu ci taxaw sëñ Mountakha sunu yaakaar def ci jëf joo xam ne kenn defu ko pour non seulement jàppale. askan wi waaye joxe ay ndigal yu wóor a wóor yoo xam ne bu ko ñëpp jëfee euh, booleeg ñaan yi nga xam ne mënut a dakk mën nañu am yaakaar ma dikkee nag ne moom comme askan wi dafa mose nekk ci askan wi di leen jàppale euh, te li ñu fàtte fàtte woon rek mooy tamit ba bi président woote yi tamit ba ñi nga xam ne ñoo ŋànk diin gi wuyu ko dafa am it tawfiixu ñi nga xam ne sax ñoo doon def kujje politique ñëpp dañoo jël seen kujje daal di koy teg ci suuf ñëpp daal di rang ci ginnaaw président de la république kon loolu nga xam ne ma Madické moom daf ci dafa mës a nekk ci bëgg Sénégal nekk benn kon loole bu amee moom ci boppam du mën lu dul ñëw sof ci yoo xam ndax daf ci daf ko yàgg a def te euh, digganteem ak Moukhaddamatoul Khidma mi nga xam ne ñooy saytu mbir mi dafay yàgg ba man mii sax jur na ci samay ay kóllëre yu ma am diggante digganteeg ñi ne ci boobu te loolu ci ci jëfam la la jóge muy sëñ Abdou Lahad Bousso mi nga xam ne yàgg nañoo kóllërante kon loolu moo tax mu ne tey jii ñëw na indi fii loo boo xam ne daf ko jële ci loo bi mu indil population bi yëpp waaye faw mu beral loxo jumaa ji waaye indil na population bi yëpp loo xam ne lépp boo ko dajalee xayma nañ ko muy fukki million ak ñaar loolu nag jël na ci lu am solo moom la indi ci jumaa ji la nekk moom mooy masque yi ñuy wax indi na ci ñaari yi masque yoo xam ne yii ci jumaa ji lañ koy teg li ñuy wax alcogel muy bouteille yooyu nga xam ne bouteille yu 500 millilitres yi mooy juróomi téeméeru millilitres mooy yu mag yi indi na ci juróomi téeméer yoo xam ne ci jumaa ji lañ koy lañ koy def loolu ñuy wax buteelu madaar madaar yooyu ñuy nga xam ne nañ jëfandikoo ci cet bouteille yi ñetti téeméeri bouteille euh, indi na ko fi léegi danañ dem gis ko loolu ñu ak euh, saabu yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo yi saabu saabu saabu ndox yi indi na ci euh, ñetti téeméer kon loole la ne woon tey jii di ñëw fii euh, jébbal ko waa muxadimaatul xidma muy nu mu xeeb nag ndax jamono rek moo dem mooy mooy ni mu demee waaye bu fekkoon lu lu lu di la loolu dana ko wéy dina dina dana ko weesu lu bëree bëri bëri mu ngi sant nag ñu ni tamit ñi sunu borom may ñu ànd ak moom ñoo ngi koy sant di ko ñaanal suñu borom gën ko koo mën loo euh, di ko ñaanal tamit suñu Cheikh Ahmadou Bamba nangul ko jëf jooju te tawféex yi bokk ci ñun ñëpp ñu bokk ci tawféex yi Sénégal te feebar yi fi dugg suñu borom génneel ñu ko fi yu gaaw te buy ta génn ci àdduna bi nag njëkk a génn Sénégal ba nga xam ne dootuñ ko fi gisati ba ilaa yawmi diin. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. président Madické ñu ngi lay delloo nuyu lu bari di nuyu kilifa yi nga àndal ñu ràññee ci sëriñ bu Mbacké ak sunu xarit sunu wëllëre sëriñ Mouhamadou Ndiaye ak kilifa yi nga àndal yëpp. Euh, sëriñ Fallou ak ña ñëpp di la jottali nag ay cant yoo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax ni ko sëriñ Mouhamadou Ndiaye waxee léegi rek sa diggante ak jumaa ji day loo xam ne dafa mel ne soow ak suukar da boole naan baa nga boole tuur rek noonu nga mel ak jumaa ji ak ñëpp nag ci waa jumaa ji kenn nga ci ñoom koo xam ne. dangaa limaale sa bopp si ñi fi nekk loolu nag cër la bu rëy bu mat a sant yàlla man sax damaa jàpp dafa dugg ci li la Cheikh Mouhamadul taxaa doon wax ci cër bu rëy bi nga xam ne am nga ko ci sëriñ Touba ba moom mu seereel la ko loola day seere soosu ñun mën nañoo duggaale ci biir ndax li ñu seetlu te di ko gis mooy jumaa moom suñ borom tabaraka wa taala ñi koy dundal la wax innama yaamuru masaajidallaahi la wax ñooñee nag mën nañoo wax ne ci nga bokk ndax gis nañu ne soo nekkee ci dëkk bi ci jumaa ji ngay jullee si waxtu juróom sax da ko fiy jullee si ñi fi nekk ñëpp jaxasoo nga ak ñoom muy imaam muy noddukat muy daayira Muxaddamatul Xidma muy waa barab bi muy ñëpp lool nag boole koo boole sa bopp ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi koy liggéeyal fii loola moo tax kon nag lii du doon lu ñu bett ndax taxawaay bi njëkkul tey taxawaay bi sax dem na ba sunu kilifa di sa kilifa di Cheikh Mouhamadul Moustapha moom sëñ Massamba gis na taxawaay yooyu mu joxaat la ci leneen ndigal nga boole ndi la nga daan jëf ak ndigal li la sëriñ bi jox di ko jëfe mu nekk ñaari taxawaay loolu lu rëy a rëy kon nag na nga xam ne euh, ñun dey dañoo nekk rek ci diggante bi mbir boo ko yëkkatee mënoo ko ñàkk teg ci ay loxo nga di ko teg ci sunuy loxo waaye gëm nañ ni li lu fii lu fi waay andi ci loxob Sëriñ Tuubaa la ko teg te loola it mooy li wér ndax moo santaane woon digal li moo wax li mu ci wax itam wax ko ci lan dafa waxoon ne ku ci feeñ danga feeñ ba faw ku ca suulu dana suulu ba faw yow nag suñu borom mii maye may na la nga feeñ ci kon nag war ngaa sant yàlla bu baax a baax a baax a baax yaa bokk yu baax yi nga xam ne yéen nga ñoom nga àndal ci liggéey bii ni ko sëriñ Mouhamadou Ndiaye bi ñuy waxee nga xam ne yàgg da nga ne yàgg ànd ci ab liggéey ba yàlla def ni nga jaxasoo ak barab barab bi sax moom mu jaxasoo ak barab bi kon yow yëmatoo sax ci jaxasoo ak barab bi waaye da ngay jaxase barab bi ak ay nit kon nag ñu ngi lay seereel ne cant googu ñu ngi la koy sant bu baax dañoo nekk ci bunt bi nag di la ko sant waaye wóor nañu ne cant ga am solo mooy cantuk sëriñ Touba te cantuk sëriñ Touba nag moom ci barab bi ñoo lëkkaloo ku ci ku nekk am nga ci sa wàll kon nag na santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax jëf ji itam ànd naag yéene ànd naag pas rafet na rafetlu nañ ko ñaar daje na ci ni ko sëriñ euh, Mouhamad waxee léegi benn bi mooy topp ci ginnaaw sa beneen ba ca mooy jëfe ndigalam sëriñ bi jëf na nga topp ci moom digle na nga def loolu nag ab bi mënu koo weesu te itam mu ne am yaakaar ju ëpp jëfe loolu kon nag ñu ngi lay ciy sant bu baax di la ci gërëm di la ñaanal suñu borom tabaraka wa taala mu gën laa dëgëral gën laa sàmm gën laa aar yaag mbooleem ñu ngeen ko seqal ba taxawaay bii nga xam ne moom ngeen am ci barab bii am koy ciram ci mbooleem yoonu mu rek fépp foo xamante ni yoonu murit nga fay yëngatu ñu di la gis nga di fa taxaw taxawaay yu am solo yii loolu yàlla na yàgg lool te ni nga li nga ci yéene te bëgg ko te mooy njariñul ëllëg nga am ko ci àdduna nag du kër pay àdduna du kër pay fay gaa nga ëllëg loo gis fii lu mu rëy rëy rëy rek lu fees ci ndab li leen tuuru waaye fay ga moom ëllëg la foofee nag fa la dikkee fay te fa la fay am njariñ ndax foofu mooy dund gu dul jeex waaye àdduna lu fa am lu mu rëy rëy rëy ak lu mu bari bari bari bari ci tàggoog loola rek lay mujj àllaaxira nag lu fa xéwal gu fa am day taxaw ak moom ba faw te jumaa nag dafa am lu ci suñu borom digee yonente bi alayhi salaatu wasalaam jot nañu ne euh, xam nañu ne àdduna kuy takk soxna da ngay joxe ak ceeb ngir mu door laa lew ceenu ña nga xam ne nag ñooy waa xuurul ayni yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na mooy setal jàkka bale jàkka buub jàkka ak dundal ko mu xuurul xuuri fil janna kanzul masajidi wa amaratuha kon suñ la gisee ci cat gi nga xam ne mi ngi ci biir jumaa ji gis la itam ci dundal gi nga xam ne ñu ngi koy dundal jumaa ji danañu la mën a seereel ne yow mii kat bokk nga ci ña suñ borom doon tagg ci alquran ba wax ne ulaayika humul muhtaduna ñooñu ñooy ñi jub te jub rek mooy la am njëriñ ëllëg kon nag e, nii nga taxawe ci cet gii taxawe ko ci fegu gii nga xam ne ñu ngi koy fegu ci jàngoro yii te taxawaay bi nekk lu jëm ci jumaa ji nekkit lu jëm ci armeel yi ndax fii la fi ay indi dañ koy jëfandikoo ci jumaa ji waaye dañ noonu it ni koy jëfandikoo ci jumaa ji noonu la ñu koy jëfandikoo itam ci morgue bi noonu lañu koy jëfandikoo itam ci bàqeyam moo tax quantité bi am solo lool bari gi itam am ci solo lool te noonu loolu mel na yow dégg nga ko xam nga ko te taxawee nga noonu kon nag yal na la yàlla dollee suturaal dolli leen a sàmm yokk xeewal yi te musal leen ci ndogi adduna yi musal leen ci ndogi barsaq yi musal leen ci ndogi àlaxira wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.